wasallama taslima salaatan wa salaam wa barakatan taqudu biha li cheikh alxadim alxail sillaali ila aljannati baaxin tawassaat wa kulli wa maali saana xaamin musassisu mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa seen mbokkum taalibe Cheikh Njaay Gànna moo leen di nuyu nuyoob jullit ak mbokkum jullitam di leen nuyu nuyoob taalibe ak mbokkum taalibeem di ñaanal xalifatul am li tariqatil muridin cheikh mohammadul muntaqa sunu borom subhaanahu wa taala guddal aw fanam te yokk ba mu matali ay yéeneem ak ay naalam ci liggéeyal xaadimu rasul te mu ànd kook mboolem njabootug sëriñ Tuuba gépp ak kilifa diine yi ak mboolem jullit yi ak taalibe yi di jaajëfal mboolem ñi nga xam ne ñooy topp jataayi sëriñ bi di siyaare bu baax sëriñ Muudu Ngom ñing ci liggéey bu am solo bi nga xam ne mu ngi ko joyal jëme ko ci Cheikhul Xadim bismillahi irrahmani irrahim sëriñ siréloo radiallahu taala anhu bi sëriñ tuuba xaadalahu allahu di jóge sànnu si dane ko wutal koo dénk dëkk bi te ànd ak man ndax lu nekk sunu borom subhanahu wa may na ma ci ab lim ba mu des sa jëmm ji yow moom yàlla sunu borom subhanahu wa dane ma benn rekk lay doon siiw na sëriñ sireloo radiyallahu taala anhu sunu borom subhaanahu wa moo ko jagleel sëriñ tuuba xaada lahu allahu maxtaara su ko defee tolluwaay yi ci xol yi la nekk loolu itam sëriñ bi da koy xam lool fi mu ku mel ni sëriñ siraloo mi radiyallahu taala anhu sëriñ tuuba xaadalahu allahu daana ko liggéeyloo lu bari ginnaaw bi mu faatoo ci loolu danañ ci mën a xame jombul mu koy liggéeyloo ba tey jii ndax sëriñ tuuba xaadalahu allahu maxtaaralahu nee na du faatu wallaahu aalam sëriñ tuuba xaada lahu laaxu maxtaara lahu mas naa wax sëriñ malik njaay radiyallahu taala anhu ne ko wool ma taalibe yi ba ñu dajee mu génn sëriñ malik njaay radiyallahu taala anhu ne ko ñépp daje nanu sëriñ tuuba qaala lahu allahumma taara ko ñépp mënuñoo daje sëriñ ma sàmba radiyallahu taala anhu ne ko daa xamul li ëpp daje nañu sëriñ tuuba qaala lahu allahumma taara buli li ëpp dajee ma wax li ma bëgg a wax xam ngeen fu ma leen jële ak fu ma leen jëme ñu ne ko déedéet sëriñ tuuba xaadaloxo laaxu maxtaaraloxo ne man mi xam fa ma leen jële ak fa ma leen jëme lu ma leen digal na ko def lu ma leen tere nangeen ko bàyyi daldi fatu siiw na sëriñ tuuba xaadalaxoo laaxu maxtaaralaxoo sàmmoonte gi day feeñ ci lépp moo tax lépp loo xam ne du dëgg ak lu ñu ko miin miin ci waxin yi ak jëfin yi du ko wax du ko itam jëfandikoo su ko defee ñun nag li ñu war a jànge ci nettali bii mooy jiima daw ay fen lu ñu man te xam ne ndegem sëriñ tuuba xaadalahu laahu maxtaaralahu lii la jàppe lu amul ba tax mu koy moytu ci waxin yi bëggul benn murit muy fenn ab jaam nag lépp lu muy jiima ci ndigal yi sunu borom subhanahu wa taala da ko ciy dimbali bu baax lépp lu muy jiima bàyyi ci tere yi itam da ko ciy dimbali waaye loo dul jiim doo ko man mukk war nañoo xam ne wax lu amul bokk na ci bàkkaar yu mag yi nee nañu sax jullit mën naa def lépp ba mu des fenn wallahu aalam sëriñ tuuba xaadalahu allahu maxtaaralahu mas naa woo sëriñ moor biraan géy radiyallahu taala ca njaareem bisub àllarba bi mu ñëwee mu ganale ko ba noppi ne ko dama am lu ma yittewoo ndax nanga ko man sëriñ moor biram géy ne ko mbàkke boo ma ci dimbalee danaa ko man sëriñ tuuba xaadalaxoo laaxu maxtaaralaxoo ne ko dama am yitte barsàq bëgg ci abraar yi maanaam nit ñu baax ñi ñeen fukk demal ma ca te ma bëgg nga jiiteel ma leen sëriñ moor biraan géy radiyallahu taala anhu ne ko mbàkke boo ma ci dimbalee danaa ko man sëriñ tuuba xaadalahoo laaxu maxtaaralahoo ganale ko ba ca ngoon mu jox ko am mbàjj ak turkeb njaareem ne ko man nga ñëw dellu kalzaan ne ko boo demee nga sol mbubb mi càngaay li itam mi ngi nii soo àggee na nga wut ñu man alxuraan ñu ñëw ci sa wet di jàng alxuraan dana am taw buy soob bu ñu tàmbalee njàng mi ba ca biir taw boobee mook malaaka mi jël ci sag ruux ñooy ànd sëriñ tuuba xaadalaho laaxu maxtaaralaho ne ko danaa yebal siré maanaam sëriñ siréloo radiyallahu taala la ko wax sa wólëre wa moo lay taxawu si nee nañu ba taw bay sóob ak ba sëriñ siréloo radiyallahu taala anhu di yegsi benn la moo ko waajal itam sëriñ tuuba xaadalahu allahu maxtaaralahu yabal na maam ceerno ibrahima faati ak sëriñ isa jenn ak ñeneen radiyallahu taala anhum waaye bu ngeen demee na ko sëriñ siréloo radiyallahu taala anhu taxaw siiw na cëy sëriñ tuuba xaadalaho laaxu maxtaaralaho daa mel ni lii li muy tegtale mooy barsàq genn kër la goo xam ne dañu fa daje di xaarante ndax lii sëriñ Tuuba xaadalahu laahu maxtaaralahu wax loolu lay tegtale ba tey li mu wax ak ni mu def ci sëriñ siréloo radiyallahu taala anhu dañuy xamal ne wóllëre am na solo lool te it moo war jiitu keneen ba tey war nañoo xam ne sëriñ tuuba xaadalahu laaxu maxtaaralahu abraar yi la wax ne ñoo koy jege bu ëllëgee wala niyal abraaru fil uxraaya wan xaadali bilantihal xiraaya ndegem sëriñ tuuba xaadalahu laaxu maxtaaralahu abraar yi la wax ne ñoo koy jege ëllëg kon kenn ku nekk ci ñun war nay fexe bokk ci ñoom li koy may nag mooy bàyyi tere yi lépp tey taxoo tuub loo ci def tey góorgóorlu lool ci ndigal yi te sëriñ tuuba xaadalahu laahu maxtaaralahu moom ay ndigalam bu julli jullee juróom jàllee mooy jàng alxuraan ak xasiidaam yi ñi taqoo ñaar yooyu ak baril leen ak sellal leen ci la murit yi di rawante yàlla nañu yàlla doole dimbali ci barkeb sëriñ tuuba xaadalaho laahu maxtaaralaho wallaahu alam ñeen fukk ñooñee sëriñ tuuba xaadalaho laahu maxtaaralaho di wax xëy na danaa leen andi ci sunu jataay yi nga xam ne mooy ñëw ci kanam wallahu aalam am na mag mu masa faatu ci njaareem sëriñ tuuba xaadalaho laahumma taaralaho wax ne nañu ma xoolal fu mu toll ci man ñu ne ko bàyyi na fi aw fos akub sëriñ bi ne lu bokk ci sama liggéey bi moo tax may wax ñu ne ko bàyyiwu fi dara lu bokk ci sa liggéey bi sëriñ Tuuba xaadalahu laaxu maxtaaralahu ne leen bu ngeen demee ngeen jaay fas wa seet ku rafet loxo ngeen neexale ko ko mu bindal ko fukki bayit ak ñaar ci sama xasida yi ngeen moomale ko ko bala ñu ko denc bi loole amee sëriñ tuuba xaadalahoo laaxu maxtaaralahoo ne leen li ma def xanaa jaaxal na leen ñu ne ko waawaaw mbakke sëriñ tuuba xaadalahoo laaxu maxtaaralahoo ne sama xasida yi lu ci bàyyi ginnaaw lu mu niw niw bis bu faatoo ba ñu dugal ko ci biir bàmmeelam lu ma gaaw gaaw danaa fekk la war ca moom ñu def ko ba noppi siiw na moo tax sëriñ tuuba xaadalaxoo laaxu maxtaaralaxoo di wax ne la shakka في كون مكاتبي لدى ربي جنودا منه صفت قلدا سرين توبا قادله الله مختار له ننا شكل moom ne ay mbindam ay kuréel lañu fa yàlla subhanahu wa te loolu mooy ay jëmm lañu ba tey danañu xam ci nettali bii ne jaawartu bil furxaani rabbiyal muin daa am darajaay sëriñ bi tudd ko ci ko faatu waaye xasida yépp ñooy texeel wallahu aalam mbokk yi ñoo ngi leen di jox dig daje ëllëg insha allah ak seen mbokkum taalibe Cheikh Njaay Gànna ci jataayi sëriñ tuuba xaadaloho laahu maxtaaraloho di ñaanal bu baax sunu sang bu tedd bii sunu kilifa gu màgg gi nga xam ne moo fi bàyyeekoo sëriñ moodu maxtaar mbàkke ibnu sëriñ cheikh awa balla ibnu maam cerno ibrahima faati sunu borom subhaanahu wa yokk ay leeram te taax ñu ci barkeem te xaare ko ca àjjana ya gën a kawe ci barkeb sëriñ tuuba xaadalahu allahumma xtaaralahu di ko jaale bu baax sunu xarit sunu soppe sëriñ gànna misre al maxtaar waaye di ko ñaanal moom it sunu boroom subhaanahu wa taala guddal aw fanam lool yokku kàttanam ba mu mottali ay yéeneem ak ay naalam ci feeñal njàngaleem sëriñ tuuba xaadalahu laaxu maxtaaralahu di ko jaale bu baax sunu jigéen sunu xarit soxna maam jaara mbàkke moom sëriñ gànna misra al maxtaar di doom ci sëriñ moodu maxtaar mbàkke nga xam ne moo fi bàyyeekoo waaye di ko massawu di ko ñaanal moom it sunu boroom guddal aw fanam yokkal kàttanam ci barkeb sëriñ Tuuba dellu di ñaanal sëriñ Moodu Maxtaar Mbakke ibnu sëriñ Cheikh Awa Balla ibnu maam Cerno Ibrahima Faati sunu boroom subhaanahu wa taala yokk ay leram dellu yokk ay leram sëriñ Tuuba teeru ko teral ko yóbbu ko ca àjjana yëgg na kawe ci barkeb sëriñ tuuba xaadalahu llaahu maxtaaralahu wallahu aalam